juróomi at ak ñeent ci promotion wu xëyu ndaw yi ANPEJ nag nekk modèle bi nga xamante ni ni moom la GIZ bu Gàmbi daal di tànn ngir collaboration wam te jaarale ko ci créer ay emploi yu bëri choix wu Sénégal nag li ko waral bëri na buy sukkandikoo ci délégation Gàmbi bi. ne mënuloo am partenaire bu ëpp Sénégal. nuñ bokkee si culture ak nuñ bokkee si proximité. amul feneen fu ñu war a mun a demee pour set pour war a mun a jàngee good experience dans Sénégal luñ jàngaagum suuf ak buñ delloo foog naa dinañ war a mun a def yu bëree bëri jàngee nañ ko si Sénégal dina mun a dimbale daanaka dëkk su waree dem kanam foog xale yi jóg foog xale yi takku foog nga organiser xale yi. ci collaboration bi nag Sénégal ak Gambie dinañ ànd ñoom ñaar adapté programme coopération technique bu allemande. dañu tàmm ci réew mi yu jox ay financement dañuy joxe xaalis te gis nañ ni euh, financement yu ci bëri day nasaxaay comme ñoom nag on a compris ça pour bañ xaalis boobu di dem dañu préféré léegi. Euh, xaalis bi duñ leen ko jox ma dañ leen di jëlal loo xam ne lu méngoo ak programme bi. loolu permettre na ay jeunes yu baree bare bare tey. yoo xam ne tey créé nañ seen entreprise bay comment bay jëli ñeneen. ñaari dëkk yi nag li ñu bëgg mooy gën a créer ay emploi ci seen biir dëkk yi waaye itamit wàññi bu baax lu jëm ci immigration clandestine xale yi le